mbokki Sénégal mbokki biir réew mi ak bitim réew xéewal a ngi nii gu feeñ ci biir dëkk bu sell bii di Touba waaye fépp fu ngeen mën a nekk ci àdduna wërngal këpp ngeen mën cee jariñu yéen ñi nga xam ne yéen doon am ay jafe-jafe seen biir léegu sëy bu ñàkk kàttan wala lépp lu ci aju garab gi li la ci ay saafara ñu ko xam dëgg nag ñoo ko tuddee abadal ndax garab la goo xam ne lii doxum kese lay dool ñu jàgg ay baat ëf ko ci nga jëfandikoo ko tàqalikoo ak jafe-jafe ñàkkum kàttan ba abadal ba tax na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te leen siyaare di leen baalu àq ñëpp di ñaan yàlla din defal jàmm fu mën a nekk dellu si nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax Tanime TV Seydina moo nekk ci xarala gi ñu ngi nuyu Baye moo du Touba 28 mi nam dégg ko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mu ngi jëm ci Moustapha Diakhaté ci di fan yi jàpp naa ne dégg wax ju ji nga xam ne ju rafle la ju ñàkk a woddu la wax la joo xamante nii euh, ju ju ju ju ju deltu ginnaaw ju suufees yoo xamante ni mi ngi koy wax jëmale ko ci réew mi te réew mi fii ñu toll képp koo xamante ni am nga xel wala yàlla bind ci sa xol benn toq gëm yàlla walla leer walla yéene ju rafet jàpp naa danga gis ne réew mi fi mu toll lu garaaw la jàpp naa ne képp ko am baat te yàlla di la waxloo te wax ja war a doon wax juy jëriñ mooy fexe ba réew mi dellusi ci jàmm dellu ci jàmm nag la ca ëpp lépp mu ngi nekk ci loxol suñu borom waaye ñun nag am na luñ ci wootal ak di ko yeetal loolu nag ñi koy wootal ak di ko yeetal war na noo xam xef xam seenu seeni xef ñu xe ñu xemb ko ñu xamb ko wala ñu damm ko war na noo laamal laamal seeni làmmiñ war na noo e, tëral seeni làmmiñ ba seen kàddu du jëm kaw kooku nag Moustapha Diakhaté mi da cee bokk waaye balaa booba ñu fàttali leen ne am na garab gu am solo gun fi joxe koo xamante ni wàllu ngóora la képp koo xamante ni soxla nga ko mën ngaa woote ci numéro bi sama numéro la 77 145 40 40 mooy daw noonu ci kii bi képp ku ci woote incha allahu bi jàpp naa ne kilifa gi nga xam ne mooy taxaw yi moo koy def te bëgg fas yéene cee dimbali ñenn ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci xeet yooyu mu dimbali leen ci ngir jaamu yàlla ku ci woote incha allah rabbi da nga jokkoo ak la jokkale ak moom i tamit incha allah rabbi mbokk yi Moustapha Diakhaté de fan yi nga xam ne élection yi day bëgg ñëw te nu fomm ko boroom xel yu xel yu yëpp ak yi xalaat xalaat bu rafet yëpp ne lii de Macky sàll taxaw ba bëccëgu ndara kàmm ne day fomm élection yi. jamono yooyu ñetti bakkan faatu nan ci ñenn ñi yàqule ci seen alal ñu ne lii de gis na ne fomm élection yi lu baax la mën naa indi jàmm mën naa dalal réew mi waaye ànd ak loolu lépp nag la koy gën a dalal mooy leader Pastef bi nekk ci biir kaso bi ñu tijji ko ci tijji ñi mu nekkaloon ci kaso bi loolu it bokk na ci liy gën a indi jàmm xam naa boroom xelukat yi ak boroom xalaat yu rafet yi wax ne Macky sàll loolu de li koy defal mooy nga génne usmaan Sonko ci kaso bi génne déteneur politique yu bari ci kaso bi ndax sa ministre bi ñu daan wax Antoine Diome de liñ ci tëj ci kaso bi buñ ko xaymaa toll na ci junni ak juróomi téeméer ak nangam ñoo xam ñu ngi ci biir kaso bi ñooñu nag ku leen génnewul génnewul lider bi jax jàmm mën naa bañ a suuxatu ci réew mi te yow de fii nga toll jàmm rek nga war a woote sa kuddit jàmm rek la war a ràcc ñu dégg ku jege euh, Macky Sall ne élection yi de Macky Sall fomm gii mu koy fomm man képp koo xam ne yaa ngi ko koy conseil dinaa taxaw jàkkaarloog yow te loola Aliou Sall deraki président Macky Sall moo ko def loola nag ñu gis ñu ciy doxi jéego Moustapha Diakhaté ne Macky Sall de su fekkee ñii nu jàpp la bëgg génne man dinaa jàkkaarloog moom te dinaa ko bàyyi te ko sàll sax man bàyyante woon nan li tax ma duggaat ci moom mooy bi mu bëggee xeex Ousmane songo laa ñëw ci wetam <coughs> ngir jàppale ko ngir ñu xeex usmaan Sonko te xeex googu ñu xeex Ousmane Sonko dafa war a continuer waaye war a dialogue wërta am te moom mii Moustapha Diakhaté de moo fi génn bëccëgu ndara kàmmu ne dina am ñu nu jàpp dina am ñu nu rey dina am ñu nu tëj danañ jàpp Ousmane Sonko danañ tas partem bi ci Pastef loole mu ko waxee woon lu ci bari daanaka dox nañ ba teg ci suñ bët léegi nag ñu xam ne wax jooju mu waxoon Macky Sall xam ne ne lii ko ñenn di digal du lu baax te fi ñu toll de jamono ku baax dafa waxoon Sëñ Tuubaa dafa waxoon ne jàmm de gisul lu ko gën fii ci àdduna gisut lu ko gën laaxira te dafa wax kenn ne ko yow ku mën a woote ak lu mu mën a woote wooteel jàmm ndax jàmm boo ko wootee ku ko am nga am ko ku ko amul tamit nga am ko waaye Moustapha Diakhaté mii dafa mel ni waxul président Macky Sall moo woote jàmm. xam ngeen ne nit amoo kenn koo mën a tafu ci wetam te yonent bi salaa salaam moo waxoon ne bu sa mbokk tooñee na ko jàppale bu nu ko tooñee nga jàppale ko waaye ñu ne ko ñun ndax xam nan bu nu tooñee suñu mbokk nun koy jàppale waaye bu tooñee ñu ne ko bu tooñee li koy wax mooy koy wax ne ko deltul ginnaaw. te ku nekk xam na ni détenus politiques yi ñu doon jàpp ñu ci bari wallaahi dañ leen a tooñ ay innocent lan yoo xam xamuñu ci dara xamuñu ci dara dara xamuñu ko ci dañoo jëkk-jëkk rek tooñ leen tooñ gu metti sax ñenn ñi fi ñu toll ñi ngi génn ci kaso bi ñenn ñi ay laago la ñuy génne ñenn ñi dañuy génn fekk seen papa gaañu ñenn ñi dañuy génn fekk seen i eh, nijaay gaañu ñenn ñi dañuy génn fekk seen jabar am doom ñenn ñi dañuy génn fekk seen i jabar tas te loolu lépp dara waralu ko lu dul cadre boo xam ne cadre politique usmaan songo jàpp naa ne ku ko yéene jàmm mu am ko waaye bu ñu demee ba moom mi nekk ci kaso bi mooy lijjanti nit ñi ngir ñu am jàmm loolu nag mbirum yàllaa nga ci mbirum yàllaa nga ci mbirum yàllaa nga ci Moustapha Diakhaté dolli ci kàddu yooyu ne ko boo jaloobee Ousmane songo nan ngay def Moussa Fall nan ngay def antuwaan Diome nan ngay def Bassirou Gueye nan ngay def Bamba Bamba nan ngay def colonel Mbeng ilaa axri yi waa ñooñu bu jaloogiwut woon yi tamit ba ba nu falu ñooñu dañuy ñàkk seeni post yàgg-yàgg dañ koy ñàkk eh, Antoine Diome day mujj ñàkk bu bu gañee bu ñuy gañe woon bu ca suba gaa du te dara ci réew mi lu dul doon dem nekk lam nekkoon mais du amat garaatu ministre dootu ko amat Moussa Fall mi mën naa am bu gañe mën naa am ñu teggi ko fa kon Macky Sall li muy def bàyyee leen fi honneur bàyyee leen fi euh, trace bu rafet loolu jàpp naa moom ku jaboote ku nekk te Moussa Diaté mii bu boobu Aliou kii mi yéen a ngi koy fàttul bu yàgg-yàgg Aliou Sall mi mas naa wax ne président ku baax la mais ñi ko jege ñoo koy yàqal Moussa Diaté bi mu toogee daanaka lu mu yëkkut Aliou sàll amut àgg na ci ba di ko saaga ku mën a fen la dafa reew dafa nangam yooyu ci rakki président boo warmaalut Aliou Sall mi warmaal président mi mu bokkal ba jox ko benn respect Aliou Sall buñ koy tudd ci réew mi mag Sall la tax ñu koy tudd mais lu mu fi def def fi dara def fi dara buñ ko xamee mag Sall la kon nan ko war mal <coughs> lii nag président Macky Sall da di ñi ko jege dëgg dëgg ñoo ko yàqal ñi ko jege ñoo ko yàqal ndax boo xoolee dëgg dëgg ni mu doon doxe doxinu buur dëgg la doon doxe ñi ko gënoon a ja di ko wax sax ay conseil ñooñu daf leen daan ay kàddoom daaw tax ci ñoom fàttalikul bi ko Cheikh Yérim Seck waxee na ko président ngir jàmm am ci réew mi dal am ci te Ablaye Wade na mu defoon ndax doo doo doo doo doo jox élection yi keneen mu organise ko ci ku jiite di njaboot di père de la nation ñu ne la ngir jàmm am nga ne ko non duma ko def duma ko def allahu akbar ngir jàmm moom lim ko ci tegal Macky sàll warut woon a seet li ko Cheikh Yérim wax mais lim ko ci tegal loolu dafa jar lu nekk ne ko ngir jàmm am doo wut keneen coordinateur nga dindi fi Aly Ngouille Ndiaye mii ni wax ne man de feeg maa ngi nekk ministre intérieur sama ñi war a woteel président Macky Sall dinaa fexe ba ñu jot seen i carte dinaa fexe ba jot te Aly Ngouille xam ngeen ne fi ñu toll yu bari fii daf leen yóbbu Linguère yu Touba yi. beneen bi ci desag kii nga xam ne moo di Alioune Tine dafa wax bi nu defee dialogue bi dafa wax président Macky Sall te ngaa woote waat beneen dialogue. ñu ne duñ wootewaat benn dialogue dialogue ba jeex na ña waroon na ñëw ñëw na ci ci gaa yi Macky Sall yi di nga xam ne duñu xem bi matt gi mukk ndax bëgguñu togg gi ñu yekk ko ndax ñoom bëgguñu ku nekk am ci ñoo doonu bëgg togg gi nekk ci taal bi rek ñoom ñu yor kudd ñuy lekk bàyyi ñu yor loxoy neen ñu ne ko déedéet élection yi moom kenn dootul waxati nangam Mame Mbaye Niang ñu koy ren ndax naa ko waxal kiyal na procès bi accéléré na accéléré Mame Mbaye Niang tey moo gën a bëgg ci ñëpp mbir mi jeex te pourtant moo taxawoon di accélérer mbir mi di nangam ay bakkan faatu ci mu ne day jot xaalis Ousmane Sonko nee na ko doo jot cinq francs doo ko jot cinquante francs ko jot te loola jàpp naa ba jonni tey de yaakaar naa ne ñoom de bu doon Ousmane Sonko doon fay alamaan sax ñoo koy fayal. Eh, Aliou Tine mi waxaat fi président mag Sall bi coow lu bare mu dikk fii ba Touba di dox ci mboolem kuréel yu mu jàpp ne mën ngeen a wax mën na noo wax lu baax mun a jàmm a gën troisième mandat. bi alaaji Assane ngay invité président Macky Sall bi mu koy laaj loolu dane ko xam nga ñi bëgguñu jàmm ku nekk di wax naa jàmm gën jàmm jàmm gën troisième mandat jàmm gën troisième mandat xam nga ñoo ñu bëgguñu jàmm te naa li mu ko doon wax lu kii la pour jàmm am rek président bi muy bàyyi ne du def troisième mandat dafa wax ne man dinaa bàyyi ngir jàmm am loolu la ñuy séentu maanaam njiitu réew ak am doole pour bàyyi pour jàmm am loolu du ragal du dara du du kii moom fi mu toll bu ko neexoon ñëpp xam nañ ne bu neexoon président Macky Sall dana forcé def troisième mandat mais bi muy bàyyi li mu wax dafa honoré dafa dafa dafa dafa am dafa baax lool ci kilifa ngir jàmm am moo tax ma bàyyi. waaye boo xoolee kàddu yeneen yi jiite ba muy wax ca dialogue ba pour ngeen am jàmm am pour nu mu tuddati troisième mandat du am da ngeen ma koy ñaan xam nga loolu rek doyoon na. waaye ci njëkk nag ngeen koy ñaan njëkk njëkk mooy ñu sukk suñuy woom damm suñuy xef sa xam sajj suñuy xef nosal sunu sunu baat sunu baat dikk ni ko président may na ko ci loo xam ne askan wépp ko bokk di mandat boo xam ne ñoo ko joxoon faloon ko beneen bi ci des ki ñuy wax atte atte atte baa ku jaabe la ko mu yaa noonu la tudd pourtant fii la wax président Macky Sall ne ko cadre yi ñoo bind cadre Casamance ñoo bind pour jàmm am ak xawma lan mais la ko ca président yi fay yéen fu ngeen doonee cadre yéen fan ngeen nekk ay cadre ngeen toog rek bind seen bind di nangam pourtant tey ata ba euh, mi ngi nii tey lii am nii moo ko àlliwutin seen loxo génn ci xam ngeen ne junni xale ñu xëy di leen génne ak nangam loolu sëñ bi kii man te lii fi ñu toll gis nga avantage bi ci Ousmane Sonko amaat ñii ñuy génn ñëpp nu woon a woote deux mille vingt quatre te fi ñu toll ñu ngi woote ñoom ñii ñëpp dinañ woote fi ñu toll te ñoom ñii ñëpp ku ci génn da ngay dëggal sa confiance bi nga àndoon ak Ousmane Sonko da gën a dëggal ne man engagement yi ma amoon tey la gën a dëggu tey laa ko gën a embauché xoolal léegi perte moo tax nit nit dal jàpp naa ne ku koy xeex sedd ci yàlla mi ko bind gis nga booy teral nit sédd ci yàlla mi tax mi mi mi ko bind mais boo koy toroxali tamit sédd ci yàlla ndax yàlla moo moom yow li ngay def ci programme yàlla ak mbirum yàlla ci ngay dox moo tax lii dëgg-dëgg jàpp naa ne ak kii nu mu tuddee te Moustapha Diakhaté daa war a noox bopp moom it daa war a noox man nan la ma Macky Sall di def ah man mi nga xam ne ma nekkoon ci plateau yi man mi nga xam ne maa doon wax ne Ousmane Sonko dañ ko war a tëj ku bokk ci Pastef ñu tëj ko desi biir parti bi jigéen dootul jureete lu mel ni Ousmane Sonko te man diggante bi ñuy wax rek fii nu toll ma nekk nii xam naa bi nu tëjee Ousmane Sonko léegi fukk ak ñett yoo xamante ni xaw ma ñaar yoo xam ne tuddee nañ ko Ousmane Sonko bërki démb ki amoon ay seex jomaay songo ñoom la ko tudde <laughs> jàpp njàmburam rey ay xaram jàpp njàmburam jomaay ca kaso ba songo ca kaso ba ñu tudde leen ay xale xanaa lii nag <laughs> saa jaxate yow da ngaa waroon ne bu bu bu kiyee man nan la may def waaye nan lay def seen Basiiru Géy nan lay def euh, Moussa Sarr nan lay def nangam déedéet yow sa bopp nga waroon a wax rek ñooñu bu leen waxal dara yow danga ngaa waroon a wax ne man nan la may def bu ma noppee nan laay dëkkee ci dëkk bi fan laay nekk nan laay def nan lay génnee ti ci télé yi loolu la Macky Sall nag li ngeen ko jural fi mu toll lu mu fayee ko mu ñëwaat ci seen kaw war ngeen koo ris ngeen koo war ngeen koo risqué de ndax lii mu nekk lépp yéen ko ci dugal lii mu nekk lépp yéen ko ci dugal yéen a ko ci dugal xam nga boo xoolee tey par exemple lu mel ni seen wal fa ak seen yi li leen fi tëj kenn xamul nu mu toll. pour pourtant loolu yéen a ko ko doon digal te loolu fi mu toll président Macky Sall foofu rek la ñu amee information lanu taal Tamba lanu def nangam lay xew fee lay xew fee fu mu ko mën a xamee yéen ñi koy wax du ngeen ko wax dëgg-dëgg réalité yi mais télé bi li mu doon génne réalité la li mu doon génne réalité la xale bu jigéen bii ñu doon dóor dóor yu metti yi ab policier di ko dóor ñuy jël lafañ bii ñu doon dóor di ko kuntaaba kii bi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 ngeen mën cee jariñu yéen ñi nga xam ne yéen doon am ay jafe-jafe seen biir léegu sëy bu ñàkk kàttan wala lépp lu ci aju garab gi li la ci ay saafara ñu ko xam dëgg nag ñoo ko tuddee abadal ndax garab la goo xam ne lii ndoxum kese lay dool ñu jàgg ay baat ëf ko ci nga jëfandikoo ko tàqalikoo ak jafe-jafe ñàkkum kàttan ba abadal ba tax na